follow my name, guy. Follow my, follow my name, guy. Follow my name, guy. Nanko lady, guy, why? Babam la jana nyanko, yo khana kiso nyanko. Yo bo khamon nyanko, do la ke kamo nyanko. Babam la jana nyanko, yo khana kiso nyanko. Yo bo khamon nyanko, do la ke kamo nyanko. Nyanko, da falao mi kon do talk, ni ko maglay ke kanto. Nyanko, babu jango, boy rangu sort, ni nena nyafa dog. làmbal ak meen ku ne lay lami sol ñànku ñànku ñànku dafa lew ba leen ma man la ñànku njaay xamee ngeen ma ñëw naa nag di leen présenté chaîne bii nga xamante ni mooy 5 TV Sénégal wala Sénégal 5 point com topp leen demal ci sama nga def flash nga dem ci flash store bi nga dem nga def TV nga am ko xoolal télé ngay am direct ñànku yaa ngi fa ñànku yi am si àddina bi yëpp boo ko soxlaa foofu nga koy seeti maa ko moom yéen a ko moom xoolal da nga def www point sénégal 5 point com donc information yu leer

salom bu ñëwee jox ko salom. Mm. salom bu ñëwee jox ko salom moo tax histoire di dee. jërëjëf la li nga def nii. Mm-hmm. suba boo fi nekkul yow yaa fi war nekk te yow boo fi nekkee da nga fi war a nekk ak say njaboot. waaye te bëgg naa boo leen di wax benn mbir ñu ne la papa foo dégg li nga leen sama papa moom ko doon wax yal na ko yàlla yërëm. amiin la yàlla yërëm. Modou Massi la. Ah. ak Malila. Modou Modou Massi la ak Malila. Modou Masila ay waajur amuñu dara ay nuyu doole la. Modou Masila. Mhm. waaw waaye Marila dafa dund judd ci kër buur. kër buur bi bëgg ko ba yemalewu ko ak lenn. Marila si rafetaayam si jekkaayam ak fonk bu ko yaayam fonk papaam fonk tax na nit bu ko dugal lépp pompa la koy fekk Marila judd na ba am ñaar fukki at tànk mu sa teg si suuf leen Marila xanaa du buñ sangoo moom lépp fa la koy def lu noonu. bu waree am besoin yooyu nga wax dañ koy leem. bëgg néeg waaw dañ koy fob dañ koy yóbbu surtout wàll de mu def muy def ñu laab ko indiwaat ko mu tëdd koo koy mari la waaw Mori Masila ba mu juddoo la ko papaam tëj ci néeg ba mu am ñaar fukki at ak ñaar. moom tamit dañ koy leewu. yow déedéet moom doomu baadoola la. ba mu yëggee ne am na buur bu leen sonal moom Modou Massila dafa dem kër ñoom Marila dem fekk fa Marila ne ko je t'aime I love you man yow rek laa bëgg. borom xalam moom lu ko njëkk jaaxal mooy kër gi kenn mësu fee dugg. góor daal di am fitu dugg ci këram di ko wax je t'aime te loolu nit xalaatu ko mu daal ni kii laa doon wër góor yàlla bii laa doon wër kii lu baax la ngay doon wax I don't care kii mooy I don't care. kon wax loolu Balla Gaye yow yow lu da am baax nga bàyyi sa fenn na bu léegi bàyyi ma nag waaye ba léegi nga fex ne Modou Masina moo ñëw foofu Balla Gaye lu muy wut foofu loolu exemple la Balla Gaye moo doon bëri benn mbër di ko wax ni man damaa am doole naan ko I don't care en anglais lu ci lu ci jëndee ak Modou Masina exemple ah, exemple waaw mari laa daan ne cëpp sa laal ba c'est une première fois mari laa tànkam laal suuf mu daal di daw akolaat muuri masala diggante ba mu koy fóon si la papa ji egg hmm. Hmm. daal nekk yow yaay kan Modou ma la nam ko man maay doomu baadoolo ba nga ne woon ñun dag noo xeeb ñun du dara tekkiwuñu dara man maa ñëw sa kër affronté sa doom nekk sa teeb te sa doom bëgg na ma te mënoo si dara yow mii di bàyyee yow ko la nekk histoire bi ku koy nettali du ko fekki daa am ku koy nettali di fekk wala déedéet daa am keneen ku ko nettali di fekk wax kooku moo koy nettali muy wàcc histoire di wàcc keneen nettali ko muy wàcc keneen nettali ko muy wàcc keneen nettali ko ah, yow loo ko nettali yow sam papa moo ma gënul yow sam papa moo ma nettali histoire c'est yow luy sa problème dama ne la am sa nopp da ngaa war def nii bu am sa nopp nga naan nii mu ngi nii day sori histoire boo ko nettali sam papa jeex na sam papa ba ma koy nettali am na yum si yokku waaye man gëmuma ko moo tax ma dindi ko nettaliwu ma la loolu ah waaw waaw. waaw nit loo gëmul doo ko doo ko gëmoo. très bien waaw. Modou Masela. Modou lu gën a dugal si Marila mooy Marila dafa mën a togg ceeb ceebu jën na ba muy xale lañ ko jàngal togg ceebu jën. Marila. Marila yow yaa wax léegi nii ne Marila bu juddoo ba xaw ma ñaata at tànkam bi teg ko ci suuf nga ni Marila moo togg ceebu jën. dindi ceebu jën. baa ceeb bi loolu maa ko si yokk na mu doon proposé Nyang. baaxul. waaw. waaw salaam. ñan. waaw. donc après suite bi naa. defaral pour ñu ngi bàyyi ko. Ndiaye Nyang. def. tey ñan ko Nyang. soxla dama lay baare. ñan. waaw. loo gis sama kanam. ñan. Ah, da xaaleel ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, la ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sa jamono ah, ah, ah, def ah, ah, ah, ah, ah, ñaar mi ah, ah, ah, ah, ah, bi nga ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sama ah, ah, yow ah, ah, ah, ah, ah, yow la seet na waxtaanee yow ngeen këccëg ma ci seen wax këccëg. <laughs> amul problème. I don't care. I don't care. loolu waxu jàmbur la de bàyyi ko jambul la kay mo moo ko moom maanaam. dégg nga. tey toj. man. ma dem. ci sa tata sama tata waaw oui. xam nga gerte. sama baay la ko jox fi ñu demoon keroog. waaw. eh eh bul ko wax sama baay moo la ko jox. neen mbaaw moo la ko jox. sama nijaay moo ko laa xalaat. déedéet déedéet juróom sama doom sama doom la. doom ji doom ji ki nga xam ne maa dem takk ndayam mun ko indi ko fii ba suñu borom weddi ki sama doom la pigi. waaw ku fa naanoo. yéen a ngi leew wax naa bu taalee seen seen yel seen seen seen seen xaritoo bu génnee bu génnee ma yéen a ngi leew wala seen bopp sax yow tey bëgguma nga mengambil benn problème bëgguma nga mer bëgguma nga stressé waaw dama sa tanta nga ne ko sama bàyyi jox lii ma jox ko waaw dama koy jox ñëwaat ñëwaat yow junni bi da ngay jël pour jox sa genn chaque jour chaque jour ki day versé may liggéey faw ma kii affaire la correcte affaire la correcte kii dañ ko koy may tafu nga ma tafu nga ma bëgg moon mu génn dégg naa ko kaw léegi nag nga yem fii. a yem sa ndoy baax nga naan nga yem fii. kii kii kii kii xam nga yolax lan yolax lan. waaw moo ko raw. kii moom xoolal léegi dem na sax daa daa mën a nettali ma bàyyi na ko nag moom buy dox nag bu war lu nekk si si xelam lu mu war a nettali bu bu lombee rek da ngay xam da ngay gis loolu. aw. vainqueur la vainqueur. xale bàyyi na de. ayca baal ñaan ko. waaw dégg naa saa bopp. caji woon. sama doom ji yàlla na ko yàlla defal jàmm. déedéet moom a tee dugg àjjana yéen yàlla yàlla ne ngi ànd ak waaye muñ ñi ku jur ñaan ko mën ngaa muñ mbay ci amul benn problème li nga xamante kat nag ko wax loolu lay def euh, Modou Modou bu yàgg la moo moo doon bëggante ne Massila Modou Massila waaw waaw loolu film la woon du fi ay eh, film loolu histoire buur la ak ñu nga doole ah Massila moo nekkoon doomu buur bi waaw moo rafetoon nii rek ma tam ange moo xee waaw moo xeesoon nii rek Marila waaw Marila xam nga ne Modou Massi la bu doon na kaa takk si histoire bi ah. waaw Modou Massi la ba ma takkee Marila dafa ñëw kër Marila ne ko dafa ñëw ci Marila si néegu Marila ne dafa lu la neex mais leen laa xam ni ku ko def di nga joteeg man muy ku gis nga génne sama rangooñu yaay bu boobaa nga xëy mujjee dem ah. yaay Modou masila dugg si néegu Marila ye Marila ne ko jógal nga taal añ naaj la ta ci ko may ma sama jàmm la wax donc Marila mota tàcc yaay Modou Massila yaay Modou Massila Yau ko yow xana xamou keur gi sey mool fii leka tëdd indiwu la fi akal lek lekk ak a naan ko man domou bour la duma togg ak yaay Marila commencé jooy waaw waaw waaw waaw commencé waat comprendre ma du ma waxaat. boo jox leen ma ko foofu benn mbuusi bisaab waay <laughs> waay